di génn nag gis ko noonu muy génn di tàggatoog euh, mbokk yi pour fas yéene dem nag muy noonu يشق كثيرا على أهل كنعان أن يغادرهم dina bis ci waa Kanaan seen yonent bàyyi leen fi dem لولا أنك تذهب للقاء ابنك budul woon sa doom gi nga xam ne dafay dafay jóge woon muy Yuusuf budul woon daje gi nga daje moom tey danañu fexe ba doo dem ñun tamit dana diis ci loolu ñu bàyyi Kanaan ak seen dëkk bi daal di dem loolu nag cooba rek nituk yàlla gi la loolu ndigalu yàlla la ñi nekk ci dëkku firawna yi ñoom dañoo manqué tawxiid muy wéetal yàlla te Yuusuf dafa bëgg a jottali yonent yonent ak baayam ga maamam ga ngir ñëpp waa Misra nekk ay jaamu yàlla loolu mooy jubal ñun duñ ñu ngi ñaan yonent yàlla bu ñu fàtte ba mukk yal na yàlla aar leen yal na yàlla wattu leen <laughs> kon ila liqa yonent yàlla bi ñu ngi lay tàggu fi riaayati la tansana ya nabi yonent yàlla bu ñu fàtte fi amanillah yal na yàlla aar leen ma salama fi riaayatillah wadaan ñu ngi ñaan yàlla mu aar leen ñu ngi leen di tàgg fi amanillah Seydina Yankuba ngi noonu nag ànd ak njaboot gi di dem te seeni jublu fële nga xam ni moo di Misra gis ngeen guddi jot na gis ngeen leen noonu yi nag tey du ngeen di ngeen ànd ak ñun incha allah ci la ko dagge ci aaya samaniya wa tisuun so mooy aaya quatre-vingt-dix-huit ba fi nga xam ne fala xis ba jeexee waaye bàyyi jaa ngi noonu ngeen gis ko muy jooy ndeysaan te xam ngeen ne ay kéemtaan yu bëri bëri feeñ na ci saar wi kon saar wi nettali ba ma nga tàmbalee ca bopp saar wa muy aaya bu njëkk ba ba ci aaya téeméer ak ñeent yàlla maa ngi lay ñaan allahumma qad aznaba abnaa'i laqad gharrahu yàlla sama doomi seytaane war na leen ana tajaawastu an haqqi maa ngi lay ñaan sama àq ci ñoom nga baal leen ko man baal naa leen as'aluka an tatajaawaz maa ngi lay ñaan comme que baal naa leen nga baal leen anta tara yow yàlla kayfa annahum yajhaduuna lit-ta'wiid amma salafa min ma'aasi gis nga ni ñoom rëccu nañ ci la ñu weesu woon ci ay bàkkaar kon seenu toroxlu ak seenu bàkkaar yàlla nga leen ko jéggal ci jamono jii may wax ak mu ngi noon di ñaanal nag ndeysaan njaboot gi ñoom seen xol yi daa tojoon donte kóllëre gi yàgg nag ñoom ba ñu dellusiwaat innahum naadimuuna yàlla ñoom rëccu nañu ca jàq nañu walaw annahum abtau bu ñoon bu doon gaaw nañoo tuub nag yow yàlla إنهم يطمعون في أن ينالهم شيء من بحر عفوك maa ngi lay ñaan ñoom ñi ngi yaakaar ci sa géejug njëggal allahumma tajaaw yàlla maa ngi lay ñaan nga baal leen sey ndeysaan xam nga waxoon nañ ko ni ko xaalu yaa abana astaghfir lana zunubana inna kunna xaatiin bàyyi ñaanal yàlla mu jéggal ñu ñun ñoo tooñ ñu ngi noonu dinañ jéggalul yàlla وهل يقدر الوالد على ألا est-ce que baay mën naa bañ a jéggal doomam baay lu mu yàgg yàgg mën naa baale لطالما كانت نيتي أن أصفح عنكم وأستغفر bëggoon naa leen a jéggal bëgg naa leen jéggul seen borom doon bu yàgg لكنني خشيت أن يرد الله شفاعتي waaye damay ñaan cinu googu laa ragaloon yàlla delluwaat ma ko ولفداحة معصيتي yàlla sukkandiku seen mooy ba du leen jéggal looloo taxoon baaluwuma leen sàkkumoon yàlla mu baal leen انتظرت حتى وقت السحر <laughs> <laughs> فانه من مظاني nee na bàyyi leen xel bu njël di waaj a jot <laughs> balaa fajar heure boobu heure nangu ñaan la ngeen ñaan yàlla mu jéggal leen كنت أعلم أن الله تعالى لن يردني خائبا إذا ما دعوته في <laughs> képp koo xam ni yaakaaram tasoon na bu tàllale yàlla ay loxo heure boobu yàlla ñaane yàlla yàlla nangu na ko gis ngeen Seydina Yaaqub dugal na foofu heure nangu ñaan mooy sulusu layl al axiir di ko daggee cinq jëm kaw mu ni heure boobu suñu borom day nangu ñaan kon comme que man ñaan na yàlla pour mu jéggal leen yéen tamit na ngeen góorgóorlu heure boobu ngeen ñaan yàlla mu jéggal leen seeni i bàkkaar ngeen bàyyi xel ni ñoom ñëpp ci silsilatul anbiya lañ bokk mooy yonent yi yàlla yi waaye gis ngeen <clears throat> heure boobu mbokk yi ñu bàyyi ko xel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxeeti na waaye wax ni euh, sulusu layl al axir suñu xaajee guddi gi ñetti xaaj xaaj bu mujj ba daanaka la ko déggee quatre heures jëm kaw jëm six heures nee na heure boobu suñu borom day wàcc asamaan bu njëkk bi asamaan bii ngeen jàkkaarlool naan sama jaam yi ku may ñaan ma may la ku may jéggalu ma jéggal la ku may sàkku ndimbal ma dimbali la suñu borom mooy wàcc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla bis bu nekk la koy def nag bis bu nekk la koy def ah, kon mbokk yi ñu bàyyi xel loolu quatre heures fu mu jotee wala cinq heures jëm kaw ñu góor góorgóorlu jonte bu ñu mënee jug nag yeesal njàpp julli ay rakk jéggalu yàlla ñaan ko suñuy aajo moo gën bu dee mënoo ko tamit boo tàyyeelee nga daal di tëdd fi nga tëdd sablal rek euh, muri mbalaan mi ndànk jàkkaarloog sa borom jokk sa xol ci moom yeesal sa yéene ñaan ko say aajo ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na heure boobu heure nangu ñaan la ndaxte yàlla day wàcc asamaan bii ngeen di jot asamaan bu njëkk bi naan ana sama jaami ku may jéggalu ma baal la ku may baalu ma baal la ku may jéggalu ma jéggal la ku may sàkku ndimbal ma dimbali la kon tamit ñu bàyyi ko xel kon film bi daanaka li ci ëpp dafa ñëw indi ay ñaan yoo xam ni ah ci yeneen bi la jóge nee na agsi nañ fee mooy dëkk bi wax Misra mbokk yi ñu góorgóorlu ci ñaan bu baax ñu góorgóorlu ci ñaan xam ngeen Yusuf bi mu nekkee xale gis ngeen góor gam ñaanaloon ay ñaan yoo xam ni bu defee am na téere bu ñuy wax xisnul muslim Hisnul Muslim la tudd ñu jël tur wi dinañ ko wax ci français citadelle musulman citadelle musulman ñu koy wax ci arab Hisnul Muslim téere la boo xam ne la ci ñëw ci ñaan bari na lool ak ay zikkar yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko def digaloon ko sahaaba yi place bu nekk daanaka la nga fa war a ñaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam dugal na ko foofu ak yeneen téere yu bëree bëri ala kulli xaal ku ci bëgg am ak yaatal nga dem ci laaj ci borom xam-xam yi taxaw leen taxaw leen yéenay ñan fu ngeen jógee fan ngeen jëm kii mooy suñu sama baay Yaaqub di doomu Isxaaq di doomu Ibrahim ñun ay doomam lañ ñi ay sëtam lañ ñu ngi bàyyi ko Kanaan suñu jubluwaay mooy dem Memphis ngir jàkkaarloog kilifa ak Misra lan moo tax ngeen di bëgg a dajeeg moom lan ngeen bëgg ci moom ñun ci ñun ci jege ñaale yi kilifa gi lañ kilifa Misra dañoo bëgg a gisee moom góor gi ci ginnaaw ngeen di gis mooy baay Yusuf allahu akbar ah ma ngay xooli kilifaam yi nag waxtaan ak ñoom ndax dinañ am ndigal ci dugg wala déet lu xew kon man kay xaw ma waaye fii daan nañ fi dugg nu gën a yombe dañ daan ñëw rek dugg mu yomb lool waaye nañ noppi rek am nañ xaar rek amaana danañ xam li xew mbokk ñu bàyyi xel ñii di ñëw yan yan ndaw lañ daa mel ni ay ndaw lañ. yéen da ngeen wax ne ci jigéen ñaale Yuzarsif mu màgg ba ngeen. man Yuzarsif moo ma yónni man maa Yaquub bàyyi Yuusuf ñii ay mbokkam lañ ay mbokkam yëpp jigéen ñaaleem yëpp a ngi nii. Yuzarsif moo ma digal saa yu ngeen ñëwee ma wax ni mu gën a gaawee. waaw kon ba ci kanam tuuti. nuyul ma sama nuyoo ba far àggul ma ngokk kon ñooñu Youssouf moo leen yabaloon ni leen dem leen ca commencement dëkk ba nee na ko ñaata fan ñaata ñaata jamono moo des pour ñu àgg mu ne ko ah juróom-benni fan mu ne juróom-benni fan mu mun ma kaa muñ. bàyyi ñetti fan la ko lañ koy dox ñeenti fan waaye soreetul de ayoon nañ leen départ kon gis nga nee nañ bàyyi ji laaj na leen fi ak ñuy àgg ci Youssouf. ab diir bi ni muy toll mun ko juróom-benn fan lañ ko war a dox pour àgg mu juróom-benn fan est ce mën naa koo muñ ba dajeeg sama doom ji est ce mën naa ko muñ waaye gis ngeen leen noonu ndeysaan ñu ngi noonu di dem kon mbokk yi ñu bàyyi xel liñ leen waxoon ci wàllu ñaan di bi yàlla suñu borom subhanahu wa taala dafa wax ni uduuni astajib lakum astajib lakum inna alladina yastakbiruuna an ibadati sayduxuluuna jahannama daaxirin yàlla nee na ñaan leen ma ma may leen yàlla suñ borom subhanahu wa taala mbokk yi li mu am du jeex euh, suñ sëriñ ba oustaz Ibrahima Sarr dana ko yàlla dugal aljanna daraan wax ni yàlla dafa duy asamaan ak suuf ay magasin duy xelum doomu aadama ci ay soxla soxla yooyu la bëgg moom yàlla doomu aadama bi gaaral ko gaaral ko ko so gaaral ko yàlla ay soxlaam yàlla daal di koy jox loolu nga xam ni mooy xéewal yim ko dencal ci asamaan ak suuf wa fi samay risqukum wa ma tuwaadun yàlla mu ni asamaan li ngeen war a dund yëpp ma nga ca te mooy ndox mi wàcc di taw muy ay xéewal ah, kooku bokk na ci bind yi nga xam ne Cheikh Ibrahima Sarr Cheikh Ibrahima Sarr yàlla na koy dugal aljana bokk na ci dars yooyu mu joxe mu ni kon góorgóorlu leen ci ñaan ndaxte doom yàlla lim yor jaam rek ñoo ko moom Seydina Yaqub gis ngeen heure bi mu joxee ñaan mooy sulusul layl al axiir suñ sëriñ Oustaz Alioune Guèye daan na wax ni nañ koy sàkk nañ koy ñaanal ci heure boobu ndaxte heure boobu heure nangu ñaan la kon mbokk yi ñu góorgóorlu 3 heures lu ci tegu wala 4 heures jëm jëm fajar ñuy góorgóorlu ci ñaan lu xew loo bëgg maa ngi jóge ca buntu dëkk dëkk ba ah, xibaar bu am solo la andil yu zarsiif àndal ak man ah daa mel nii ak si na nag pour wax nag ni ko ay mbokkam yegg si nañu sawfa yantahi al qahtu léegi léegi bekkoor bi jeex coobere yàlla asamaan si dina wàcc ab taw mbay kii bi tamit gàncax gi dana dana naataat ki jóge ci buntu dëkk ba mi ngi ñaan ndigal pour dugg si Yuusuf am na lu mu allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim mbokk yi nañu bëri luñ julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu mbir yu bëri da ci defaroo cay ndeysaan assalaamu ala maliki misra ala al kilifa gi buur misra muy axnaatuun aziza misra janaba yuza kilifa gi di أنه منذ ستة أيام دخل أبوكم وأخوتكم الأقارب كان هذا نبأ day xibaar bu bég bu andi mbégte la ñaata fan la ñu war a def pour agsi لا شك أنهم لن يتمكنوا من السير mënuñoo dox dox bu gaaw وليسوا ركبانا ndaxte ñu ci bëri dañuy dox mënuñoo agsi agsi bu gën a gaaw waaye ñu bëri dañuy dox moo tax شكرا لك kaana xabaran sa ne ko xibaar bu bégte la laqad afrax ne ko daal feeg ñetti fan mën nañoo agsi laka an tadhab man ngaa dellu kon sooy ndeysaan ah dañoo war a barkeelal Youssouf daje gim nar a dajeeg baayam ak ay mbokkam yeeg ñett diirub ay fanweer lu ëpp fanweeri at tey mu war a gis ak ñoom maa ngi ñaan maa ngi sant yàlla ci ci yërmandeem ñu ngi barkeelal yonentu yàlla bi ñu ngi kontaan di ànd ak yow sa mbég amaana léegi rek mbékoor bi daal di jeex ci barke barke bi yonent bi ñëw mu yonentu yàlla Yaqub bu ma amee ndigal daal damaa bëgg a dem teeru ji saa baay ak samay mbokk mun ko demal allahu akbar caay ndeysaan mbokk yi bàyyi ji ñeent fukki at mu nekk ci ay jafe-jafe malaaka bi doog koo feeñu ni ko sa njàqare jeex na tey kon mu mujj yàgg na xorin xob amaana Yuusuf ni mu war a teeroo ay mbokkam du ko man ndaxte moom bëggul àdduna du du sol yére yu baax du sol yére yu rafet léegi dem leen ngeen taaral dëkk bi waxal ni ñëpp nañu génn teeru gan yu tedd yooyu kon taaralal dëkk bi ndaxte damay xalaat Yuusuf ni mu war a teeroo baayam ci wàllu solo du ko def ndax dafa dëddu àdduna Zaxrut Zaxrut kaay digal leen ñu taaral dëkk bi nañu na armée bi yëpp génn soldaar yi nañ génn ngir mën a teeru gan yu tedd yooyu koo koy xorin xoog ndeysaan la Potifar yoroon moom lañ ko dénk léegi ñoom ñëpp tey ay jullit lañ gis ngeen Yuusuf mbokk yi daawam yàkkamtiwu ci dara ah, waaraate bi muy waaraate jëme nit ñi ci yàlla ñu bàyyi xel ne daawam mooy métier bi gën a rëy ci àdduna ku nekk na nga ñaan yàlla nga nekk daa ay nekk kat nekk kat ci yàlla donte ñëpp mënuñoo nekk ay kat waaye ku ci nekk rek euh, même boo dul mën a wax tamit nga fexe di ci dugal sa loxo làmb sa poos di ci dugal ci diina ji ngir diine avancé ndaxte ku ci nekk cër bala yàlla sedd am na ñoo xam dañuy jàngale fa lawlaa nafara min kulli firqa minhum taifa li yatafaqahu fi din wala yunziru wala yunziru qawmahum ida rajahu ilayhim laallahum yaxdaruun yàlla mënu lu teewoon euh, mbooloo mu nekk génn kuréel génn ci dem jàngi suñ jàngee ba ñëw jàngal seenu xeet euh, leeral leen li nga xam ne mooy diine ndax ñu mën a dellusiwaat ci yàlla suñ borom subhaanahu wa taala kon ci wàllu diine wàllu xam-xam du ñëpp a mën a dem di ko tasaare waaye ku ci nekk tamit ki mënta tasaare xam-xam ci njàngam mën na fexe ba diine nu mu avancé wala xam-xam nu mu avancé mu dugal ci alalam wala mu dugal ci ay ñaanam ku ci nekk li nga mën rek pour diine avancé ndaxte saxaaba yi noonu lañu bare woon ay façon yu bare bari yonente bi ku ci nekk yoroon na ko ci ñoom am na koo xam ne xeex rek man am na koo xam ni ah, ah, mën naa jàngale mën naa bind mën naa jàngale mën naa jàngal ay nit ku ci nekk na nga ko mane Yaaqub yonente bi ak njabootam ñi ngi dugg si ah mbokk yi Yuusuf yëpp danañ dugg si si dëkk bi ñi ñu bëgg Yuusuf ñoo ñu bëgg ñoo lañ bëgg kon nañ leen war a teeru tàggal leen. لقد مضى على فراقهم 40 سنة تقصد أن جناب يوزرسيف لم يلقى منذ 40 سنة هذا ما سمعته أخبروا الجميع فعلينا أن نشارك في استقبالهم علينا أن نبرهن لهم أن أهل مصر يقدرون تضحيات يوزرسيف الله أكبر ku ci nekk loo am rek moom la wax ne nañ ko andi ñu dem teeru ji baay ji ñu dem teeru ji jotaay boobu nga xam ni mooy jotaay bu mujj ba nga xam ni kon ah, ku nekk génn la nga am nga daal di koy def ci taar def ko ki loo xam ni teraanga la loo xam ni danañ ko mën a teeroo kilifa gu tedd googu di ñëw mu yent yàlla yaqub ah, ibnu ishaq ibnu ibrahima alayhi salaam يبدو أنها أبنية شيدتها أيدي daa mel ni ay nit a ko tabax de ah, waaw waaw فتلك أبنية ثلاث ñett la تم تشييدها على قبور ثلاثة من ñetti firawna yu mag yi lañ ko tabaxaloon. وهي من أعظم ما تم بناؤه. ñii moo gën a rëy ci pyramide yi ci àdduna bi pyramide yi gën a mag ci àdduna bi moom la mu nekk Égypte donc moom lañ tuddee woon Égypte lañ tuddee woon berceau de l'humanité c'est-à-dire almahdul insaniya euh, muy wàccuwaayu doomu adama akum nite ndaxte ci ñi njëkk a yeewu njëkk am avancement ci àdduna bi ci lañ bok firaay na ci lañ nekkoon yonent yàlla Moussa fii la labale woon euh, yonent euh, kooku jëmm joo ñuy wax euh, firawna allahim foofu la ko labale woon ca baxru xalduum ngir fetteerlu gum fetteerlu woon weddi tawxiid weddi wéetal yàlla kon Égypte yàgg na am histoire waaye lii nag moo jiitu yonent yàlla Moussa ndaxte laay wow ñu leen waxoon mooy maam ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam kon mbokk ñu bàyyi xel loolu léegi nag. hal haadihi madinatu Yuusuf. lii mooy dëkk Yuusuf waaw waaw bàyyi booy. moom la fii mooy Tiiba. والغبار الثائر إنما هو من ازدحام الناس boo gisee poussière bi di jug nii. إنهم يأتون pënd bi jug nii mooy nit ñi ñooy ñëw pour teeruñu. لكن هذا ليس يوسف. waaye waaye kenn Youssouf. kii mooy Rudamun. الضابط الحارس ليوسف. moom mooy gardé Youssouf. mbokk yi taxaw leen gis ni nit ñi ñëwee ndeysaan ñëpp leen di teeru ak di leen tatagal te kilifa gu tedd la yàlla na jàmm bàyyu Yuusuf nga xam ne mooy kilifa ak Misra oh, Yuusuf ngeen ci jublu yàlla na jàmm wàcc yéen yéen ñëpp kilifa ak Misra ñi ngi ñëw ngir teew leen ñi ngi ñaan ci sa kilifteef nga yéeg a kawe ndax nit ñi man laa teeru man laa tatagal ñi ngi ñaan kon nan lañ war a def نطلب منكم أن تقفوا على ذلك المرتفع ليس ما يتم وصول حضرة يوسف مع المنافقين ndaxte yow waroo nekk fu suufee da nga war a nekk fu kawe ndeysaan cey allahu akbar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقالوا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ma ngoog de loolu da ngeen gis ci kanam lan lay firi waaye Seydina Yaaqub gis ngeen fañ ko taxawloo woon nekk na fa nag léegi di nga mbokk yi li ñu mobilisé waa dëkk bépp lañ mobilisé euh, soñu ñëpp na ñëpp génn ngir teeru yonent yàlla bi waaye ngir teeru baay ngir teeru baay ba tey daal asamaan si musta am niir yi ay at yi nii niir yi amul daa mel ni sa xol bu kii bi moom moo tax mbégte mi feeñ de nee na ko niir yi niir yi asamaan si ànd ak taw bi dañuy ànd ak man ci sama mbégte ñépp dañ lay gunge tey fi mu nekk nii allahu akbar nee na asamaan saa ngi noonu commencé dajale aw niir ah, ñoom ñëpp ñuy ànd kii man ci mbégte mi nga xam ni moom laa nar a am tey ñuy ànd man ci li nga xam ni mooy ah, daje gi ma war a daje sama doom ndaxte ñaari wilaya ñoo fi daje wilayatu Yusuf alayhi salaam ak wilayatu Yaaqub nee na est-ce que du kee war fas yu di moom est moom la déedéet. laysa yusuf nee na kii kenn ci yusuf ñëpp léegi rek mu ñëw bàyyi booy léegi mu ñëw allahu akbar ndeysaan ku kum gis rek yaakaar ni yow la wasalu tanaxaw janib nee na ko taxawee leen côté daa mel ni gars yi ak si nañ mbokk yi kilifa ñii lañ ko war a teeloo nga Yuusuf cër bi mu jox baayam cër bi ko réew mi jox moo tax it am na cër bu rëy ca yàlla waaye wuuteeg magam yi lool ñi nga xam ni ñeent fukki at ñuy sonal seen baay kii tey ci benn fan dong benn fan mu fas yéene cee teral baayam nga joo xam ni àdduna mos koo am ci benn fan ñii nag ñeent fukki at ñuy gàcceel seen baay toroxal seen baay sonal ko moo tax joone may bëgg a dee waaye nag ndeysaan ñeent fukki at yi li muy metti metti yàlla yebal malaaka bi nag ni ko tey sa njàqare jeex na tàqali ah, koo ga day jokkoo dana am te ginnaaw ba waaye tamit njàqare ga ndëcce dana ko roofu ngeen moo taxit lépp lu mu am ak lépp lu mu xam képp ku mu xam rek ah, yëgal nañ la mbir mi ngi nga génn teeru kilifa gu tedd gi yonent bi sallallahu alayhi nee na woon nit dina torox bu fekkee ni dund naag ay baayam baayam ak yaayam ay wayjuram bañ génn àdduna te amul aljanna kon ñu ni ñu niñ war a fexe mooy ku ci nekk góorgóorlu ba am aljana ci say wayjur ku ci nekk rek kuy dund ak sa baay nga fexe ba am ngërëmam sa yaay tamit noonu bu fekkee sa yaay ak sa baay dunduñu nga fexe ba sa mag nga am ngërëmam ndax te na sallallahu alayhi wasallam nee na mag mooy taxaw palaasu baay ginnaaw bu baay génnee àdduna waaye ngeen bàyyi xel tamit ne état bu fekkee kilifa diine day ñëw état gis ngeen respect bi ñu koy jox ndaxte ñaar dafay am kilifa diine moom day yor daanaka jëmmi yàlla ci kaw suuf waaye tamit état day yor jëmmi buur ci kaw suuf yàlla moo séddale noonu àdduna moo tax yonente bi tere kilifa diine bu mu suufee suufeelu ci nitu état nitu politique nitu adduna déedéet ñooñu ñoo leen gën a kawe martaba ci yàlla foofu waaye daa mel ni Seydina Yaaqub na Yusuf mi ngi noonu di génn ah, ànd ak délégation bu mag bi nag ndeysaan war a fas yéene teeru ak a tatagal baayam mbokk yi gis ngeen benn fan dey ci fas yéene génn ak li mu am ak li mu am yëpp teeru baayam xam naa soreetuñu fii lu bëree bëri. mbokk ñu bàyyi xel ni incha allah di ngeen am ay ustaas yu ngeen àndal ci jotaay bi incha allah bu ñu jeexalee euh, yaakaar naa agsi nañ ci plateau bi léegi danañu bu film bi jeexee rek ñu dalal leen bu ko defee ñu jàngatal ñu Yusuf ba mu fa mu tàmbalee ca Faddaan. ba fi ñu toll nan la ñu ko mën a tënkalee ak yan jàngat lañ ci mën a tiire yan leçon lañ ci mën a tiire bu ko defee tamit yéen ñi nga xam ne àndoon ngeen ak yéen ci jotaay bi ak ñun depuis bu yàgg ba léegi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal di ñaan yàlla suñ borom nag subhaanahu wa taala mu may ñu yeggal ci jàmm waaye tamit di leen déglu ci lan ngeen bëgg nañu seen réseau point net indilaat leen ko incha allah lépp rek pour nit ñi nag gën a jokk ci yàlla rek suñ déggante yàlla dootul dog أدري كيف عساه يستطيع man xawma góor gi nan la mën a dékkooli mënta dékku muñ xoolal ni loxoy di loxe góor gi mënatul a téye boppam dalal rek yow tamit damay mujj tamit nga li ko li ko li jàpp xolam jàpp la incha allah muñal rek muñal rek dara du leen jot góor gi mënatul a dékku sama xol bi dalal waay sama xol bi dalal sama xol bi muñal muñal yow sama xol tuuti muñal rek وليس اليوم سيكون اللقاء بالذي يسكن له فؤادي tey mooy daje bi nga xam ne sama xol ci lay dale ويسر به قلبي لماذا تخفق yaa ngi yëngatoog doole yow sama xol dalal rek cooy ndeysaan اللهم صل على سيدنا محمد وسلم أنا sama mag لماذا لم يأتي lan moo tax ñëwul ba léegi dina ñëw léegi سيأتي cooy ndeysaan اللهم صل على سيدنا محمد وسلم bokk nañu bari lu ñu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xanaa gisoo màggaay gi Youssouf am tey fi mu nekk nii waaye Youssouf mbirum àgg nag ci kaw. ba mu nekkee xale ba léegi moom ak màggaay moo feeñ ci moom. ah tey de feeñ na dañ ko doon bañal di am na tey. tey ndeysaan mbokk yi ñu bay xel Youssouf est arme bi la àndal déedéet ñañ gënoon a teg ñu suufe muy baadoolo yi ak jaam yi ñoom la àndal tey te waxoon ne leen ni waxoon na Potifar ni ko bis dana ñëw jaam yi ak baadoolo yi ñooy mujj mbir mi. borom xam ah, borom alal yeeg ñëpp ah, danañ mujj daanu waaye ñu ñàkkoon ñooy mujj nag féetewoo mbir mi léegi waaye daa mel ni seen na bàyyi ji de allahu akbar allahu akbar bàyyi ji tamit daa mel ni seen na ko allahu akbar liqaawul ahibba yusuf a ngi ne sax ki dalal sama xel yusuf a ngi ne la may seen dem na gaa yi bàyyi sax ko xel sax allahu akbar allahuma salli ala sayyidina muhammad wa kooku tamit wàcc na moom tamit gis nga ko de ndeysaan <laughs> allahu akbar hey allahu akbar kenn mën a tuccatee sa bopp mbokk yi doom ju baax nii lay mel ci jàkkaarloog baayam doom ju baax nii lay mel tekki rek Io sono lei. يوسف ولدي الله أكبر اللهم صل على الله أكبر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك yaa rabbi laka alhamdu kama yanbagi li jalaali wajhika wa azimi sultaanik allahu akbar Yusuf allahu akbar اللهم صل على سيدنا يوسف اللهم صل على سيدنا محمد يوسف حبيبي اي يوسف كما صرت بي يوسف Yuusuf allahu akbar kay kenn du ko téye yaa Habib Yuusuf Habib اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم يوسف اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم يوسف لا إله إلا اللهم صل على سيدنا محمد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك أو تخبرين حال يوسف ويعقوب يوسف أكبايم في wallahi inna malaikata samaa'i tadrifuna wallahi malaaka yi kaw asamaan ñi ngi mbég ànd ak Yuusuf ci mbégte mi mbégte mi jóge ci bàyyi dem ci doom unzuri dumu'a Yuusuf al-muhriqa wa thaghrahu xoolal seen rangooñ yi ànd ak mbégte ànd ak muuñ limaadha asbaha haadha haala Yuusuf yi la mujjee bàyyi ji xam na mbokk yi allahu akbar allahu akbar ile. Allah. <laughs> mbokk yi loolu la ñuy wax jamxul xuluub mooy dem ba xol yëpp daje ci benn yëg-yëg bu demee ba yonent bi salaa salaam nee na bokk na ci wér yi nangu ñaan bu dem bi nit ki demee ba yëg yàlla ba am connexion direct jokkoo boromam digganteem ak boromam dara nekkutu fa àdduna génn na fa lépp génn na fa mu jokkoo direct suñ borom subhaanahu wa taala am mbégte ci yàlla nee na heure boobu buy ñaan muy nangu loolu gis ngeen ko ci xadra boobu gis ngeen ko ci ëtt boobu gis ngeen ko ci jotaay boobu léegi ngeen gis ci diggante ak doom waaye tamit bàyyi ju bëgg bu ñaanalee doomam rek balam tàkk yàlla ñu yàlla may loolu yàlla ñu yàlla may ñu am ngërëmal way jur yi yàlla ñu yàlla may tamit ñu am ngërëmal mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo fi jaaroon euh, Ahmadou Ndack Seck yàlla yàlla fay ko lii yëpp bu amee rek ndeysaan jotaay bi am ci réew dëkkam bii euh, yàlla ko ci yàlla fay ba mu bëgg ak njabootam ak képp koo xam ni àndoon nga moom ci liggéey bi euh, ba diine ji macha allah luñ ci man mu tasaaroo waaye tamit mag ñu baax ñi fi jaar xam ni la ko dale ci saxaaba ya ndeysaan ba wàcc ridwanullahi alayhim ajmain salafu saalih ñoom ñëpp nga xam ne ay nit yàlla lañu woon dugal seen loxo ci diine pour mu avancer waaye xaasatan yi euh, nga xam ne ñu ngi yëngatu ci adaawal islamiya pour diine tasaaroo yal na yàlla dëgëral ñëpp waaye doj jotaay yu mel nii mbokk yi bu dajee xol yëpp dajee muur la ni amul benn xol bu génn ci yàlla xol yëpp bëgg nañ yàlla jokk nañ ci yàlla heure boobu heure u ijaaba la nangu ñaan la gis ngeen mi ngi noonu agsi na nag ci pale bi ndeysaan Baye jaa ngi noonu dugg si na ndeysaan allahu akbar ah falamma daxalu ala yusuf falamma daxalu ala yusufa awa ilayhi abawayhi wa qaala duxulu misra insha allahu aminin waaw ah ndeysaan mi ngi noonu de ngeen bàyyi jaa ngi noonu di dugg si allahu akbar cay lañ doon xiyal depuis ñeent fukki at tey jii lay doog a feeñ tey jii lay doog a mat moo tax muñ yàgg dañoo wax ne ak sabr moom laysa lahu xudud muñ amul fu muy yem yeneen yi yëpp jaar nañ ci ay jaar-jaar yoo xam ni metti woon na yàgg na lool yonte yàlla Yaaqub daanaka tëdd na feebar lu ëpp fanweeri at demoon na ba dara nekkatul ci wetam waaye soxna sa téye ca moom wetam rek ba yàlla dimbali leen nga boor baa ngi noonu di ko teeru ak a tatagal yàlla na yàlla yàlla na jàmm wàcc yonent bi yàlla bi tey ndeysaan ah benn photo yi baa ngi noonu pour baay ji waaye beneen baa ngi nelee pour tante ji ca mooy yaay ji ndaxte moo yaayam ñoo bokk ndey ak baay moom la ko dénkoon moo tax yàlla wax ni falammaa daxala falammaa daxalu ala yusuf bañ duggee ca yusuf nag mu daal di tapp ñaari way juróom ya nag yëkkati leen fu kawe ni leen dugg leen misra ci jàmm ak salaam ndem soob na yàlla ñu dégg ñu déglu déclaration buur bi man kàddu lay jooxal ci mbooloo mi man mi nga xam ni mayor yor mbirum misra may kilifa gi maa ngi teeroo ka tatagal kilifteefu kilifa gi muy Yaaqub yonent yàlla bi amaana ñëw gi mu ñëw mu nekk aw ak xéewal ci réew mi baarakallahu fiikum نحن نرى في قدومه إلى أرض مصر فألحة ونرجو أن ينتهي القحط مصر في أسرع ñëw xéewal la waaye tamit ñu ngi ñaan décor bi daal di denc ci ñëwam gu barkeel gi moom yonent yàlla Yaaqub alayhi salaam léegi ñu déglu ñaar ñi. wa kunta tadunnu abadan an yaakaaroon nga ni gént gi dana mujj mu am mu jaam. wa aswa'u ma fi al-amri annana mujbaruna da'iman ala. nee na ñun li ci gën a li ci gën a naqari mooy li ci gën a kii moom metti mooy ñu ngi ñu ngi force force yu ñu màggal ko nag mën ñu ko bañ a màggal. ñoom dañoo feebar waaye ñu xal Youssouf lan lay xalam est-ce que yére yi la war a teeroo baayam. gis nga jokk na de ma nga ca kaw léegi. jëmm jee fi nekk waaye rox gi dem na bu yàgg ndeysaan ci xalaat nag laa wax waaw xel maa nga ca kaw di xalaat ndeysaan ah allahu akbar bàyyi soo ma joxee ndigal maa ngi ñaan ma ma génn tuuti dinaa ñëwaat léegi demal waaye na nga gaaw a ñëw de incha allah akbar ñu xool nan la nar a defi alxuraan lu mu wax dëgg la mbokk yi nañ ko gëm bu baax kii mooy soxna si ñuy wax asinaat mooy doomu ki gën a màgg ci ñu wetal yàlla ci dëkk bi mooy soxna Yuzarsif maanaam yonent yàlla Yusuf kii mooy Manassa doomu Yusuf la kii mooy Afrahim moom tamit mooy doomam bu góor say sata ngoog yàlla yaa yaa ngi gis saara lana min Youssouf. ah yàlla wërsëgal na Youssouf ay doom de. saara taani jamila taani. ñaari xale yu rafet yu taaru ndeysaan. allahu akbar. inna lakum zawjatan am ngeen beneen doo am ngeen beneen. Zulayxa al-jamiila am ngeen beneen sa doom ji am na beneen soxna. mooy Zulayxa aydan intadarat liqaa Youssouf li sanawat topp na Youssouf ay at yu bëree bëri. idan anti aydan kunti. yow da ngaa bëggoon Youssouf comme da ngaa bëggoon Youssouf kon ñoo ko bëggee woon. cofeelu Zuleyxa ci Yuusuf dëkk bépp ko doon waxtaane allahuma salli ala muhammad yow kon yow daje nga ak ñaari mbir yi naqaru tàqali ko ak naqaru cofeel nee na ko mbégte mi nekk ci jokkoo moo lay dindi lépp loo xam ni naqar la woon yan yàlla may la yiw yow sama doom allahu akbar daa ni am na koy génn ma ngoog ah mbokk yi jamaal baa ngoog de jamaal la boo xam ni ca suuf ga jalaal moo ci ànd mooy taar bu ànd ak tedd nga ak màggaay allahu akbar gis nañ taar bu ñu mus a gis nag ñëpp a jommi tey allahu akbar ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن أنت يوسف ولدي يا سمدوم يوسف هل ترين إليها ما أجمله وما كن جنكو تارو كن جنكو رفت هكي Yusuf suñ doom jaay suñ doom jaa ngi nii tey de taa leer na ba mel ni jant taaru na ba mel ni weer <laughs> déedéet bu ma sujjootal déedéet kay déedéet yow waroo fóon sama loxo yow yaa yor kilifteef gi ca yàlla tey jii man maa war a fóon sa loxo waaye waroo fóon sama loxo tey kenn mosu kaa dégg de sama doom jaa ngi nii Yusuf laqad rajaa axukum Yuusuf seen mbokk mi Youssouf dellu si waat na. Youssouf alladi gaaba anna sanawaat Youssouf nga xam ne ay at. jóge woon na ci ñun. daka alladi ixtaraqa fuaadi kii moo lakkoon sama xol bi ngir tàqalikoo gi ma tàqalikoo moom. laqad aada ilayya Youssouf alladi daa. Youssouf ma sànq woon ñëwaat na ci man. laqad aada ilayya sama doom ja Youssouf dellu si waat na. <laughs> cay ndeysaan mbokk yi at at yu bari la. ñeen fukki at xam ngeen ne du ñaari fan. yaa xabaayi yéen sama soppe yi. taalaw li naxmad allah ñëw leen ñu sant yàlla subhaanahu wa taala. alhamdulilah wa nasjuda lahu subhaanahu nañ ko sujootal moom yàlla suñu borom subhaanahu wa taala. shukran ala jamci shamina ngir sant ko ci dajale gi ñu dajalee ñun ñëpp tey ci kanam Yusuf ki nga xam ne mooy dalal suñu xel. cey mbokk yi kii li mu sol rafet na de taaru lool waaye day dëggal. la ca gént ga ah. kuntu mustagriqan fi mi ngi nekk mi ngi fàttaliku la Baye ja waxoon. Baye dama xuusoon ci nelaw. gént jant beeg weer wi ñu may sujootal Baye nga daal di may yee ci nelaw. inna ash-shamsa allati kutiba alayha an tasjuda lak. jant ba ñu bindoon pour mu sujootal la. tey ñu ngi nii mbir mi am na tey jii. وكذلك سيسجد بين يديك ذات يوم dina sujootal bés dana ñëw jant beeg weer weeg ak fukki biddiw yeeg benn muy sa mbokk yi dana leen sujootal سيكون لك شأن عظيم di nga say mbir dana kawe lool وستنال مقاما di nga am place bu kawe kawe ca yàlla suñu borom subhanahu wa taala di nga am bërëb bu kawe mbokk yi ñu xool góor gi di ñëw mooy kan allahu akbar cey borom tànk yooyu di ñëw mooy kan di ngeen ko xam bàyyi leen ba mu agsi ah ma ngoog de moom la yàlla wax ne wa rafaa abawayhi ala al arshi wa qarru lahu sujada wa qaala ya abati hada tawilu ruyaaya min qabl qad jaalaha rabbi haqa wa qad ahsana bi id akhrajani min assijn wa jaa bikum min albadwi min baadi ma nazaga alchaytaanu min baadi an min baadi an nazaga alchaytaanu bayni wa bayna ixwati inna rabbi latifun lima yashaau innahu huwa alalimu alhakim bàyyi jugal cay ndeysaan mbokk yi mi ngoog kon fukki biddiw lañ ak benn ak jant beeg weer wi ñu ngi noonu sujjootal nañ ko moom la yàlla wax ni mu yëkkati ay way juróom ñu daal di rot sujjootal ko mu ni yow baay lii mooy lay firi gént ga ma géntoon bu njëkk tey sama borom def na ko muy dëgg sama boroom rafetal na ci man ba ma génnee ca kaso ba dégg nga lim ko wax mun ko gis nga ni la jant bi sujjootale ak weer wi mun ko axakee ah, gis naa ko baay lii mooy lii firi gént ga sama borom dëggal na ko tey أن الله تعالى يستودع صفات جماله وجلاله yàlla day dénk melokaanam yi teddaangaam ak màggaayam ci jaamam yi nga xam ne ñoom la tànn. حري بي أن أقول kon war na ci man ma wax ni. إن أولياء الله بما لهم من مقام رفيع عنده bërëb bi ko yàlla dénk صاروا مرآة لكثير من صفات الحق جل وعلا lépp loo xam ne melokaanu dëgg la feeñ na tey. وكان نصيب يوسف من هذه الصفات yonent yonent yàlla Yuusuf mi tey melokaan yooyu yàlla jox na ko ko tey dénk na ko ko لست أغالي إذا قلت أن يوسف duma xuut di wax ni dama wax ni Youssouf ci taaru yàlla la bokk waaye mën naa wax ni daal ah Youssouf lépp yàlla Youssouf nee na loolu yëpp ngeen kéemaanu yàlla la man mën a lu ma sama bopp dara lépp delloo na ko yàlla allahu akbar yàlla rafetal na ci man ba ma génnee ca kaso ba. yàlla jële leen ca kaw ga andi leen ginnaaw bi mu roccee saytaane mi nekkoon suñ diggante sama borom ku ñeewante la ci ku ko soob yàlla ku xam la ku xereñ la yow sama borom jox nga ma ak nguur xam nga xamal nga ma firim gént yaa fent asamaani juróom-ñaar ak suuf yàlla yaay sama kilifa ci àdduna ak àllaaxira tawaffani musliman wa boo may génne àdduna di ma rey yàlla nag ma def ma nekk ab jullit waaye yàlla nag ma yéege ci nit ñu baax ña ba ma àgg seen martaba ya inni ashkuruka yàlla ma ngi lay sant xatamta li yaquba fi firaqi waladihi kama yuhib di nga génne yusuf ci eh, yaqub ci tàqalikoo gim tàqalikoo doomam ja bi talaatihi lbahiya ci taar bu màgg ba yow yàlla كحل مقل جميع المنتظرين ñi doon xaar ñëpp بالطلعة الغراء yàlla na nga feeñal ci ñoom ca taar bu rafet ba bu taaru ba ba nga xam ne yaa ngi ko tëbbee salaire yu màgg ya koor gi ñëw na ma ngoog فيظهر جمال الحكومة nee na yàlla feeñal na fi sori woon ca suuf sa taar bi gën a màgg nee na ko waa adduna ba tey ñu ngi làmbatu de nee na saalixul mawuud bu ñëwee ci adduna bi génn nit ñi ci ñàkk akug réer musal leen ci pexey tooñkat yi nee na ko saalixul mawuud dafa ñëw mun ko waaw nee na ko dana ñëw mooy wàcc ak dal ci xoolu nit ñi kan lay nekk saalixil mawuud mooy kan kañ lay nekk baada an yatiya annabiyyu alxaalis nee na yonent bi bu mujjee ñëw yonent yàlla Muhammad après ci la waajee ñëw indaha yati almuxallisu almawuud kii génn nit ñi ci di leen muccal dana ñëw ñu koy wax almahdi yakunu xaakimuha almuxallis almawuud mooy ki nga xam ne mooy set mooy setal nit ñi mooy andi maandu ci kaw suuf laa shakka sa satarawna nabiyya alxaatam walmuxammas sikk sàkk nekkul ni di ngeen gis yonent bu mujj bi. fa hal awsaltum ilayhi salaam. soo demee nag ma ko nuyul moom mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi góor gi moo daje woon ah, moom moo doon xaar Youssouf bañ ko sànnee ca teen ba mun ko xaar naa la fii ñaari junni at di la fi xaar tey bii mooy mujj dajeem bu ma dajeeg Youssouf dénk na ko ne ko nag am na yonent buy ñëw sa ci mujjantal yonent yi ñu koy wax yonent yàlla Muhammad waaye ginnaawam almahdi dana ñëw ca ginnaaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom nag mooy tëj alwilayatul uzma bu màgg gi mooy ki nga xam ni ah, mooy orienté waat nit ñi nag teg leen ci yoonu jub ba ñëpp baax waaye ñu xool ñaar ñi nee na ko mujjug doomu Israël yi est-ce que dañuy bokk ci sëtu Yuusuf ñiy mujj nguur gi ci Yuusuf la ñuy bokk wala ci man nee na ko ci Yuusuf la de Yuusuf a koy mujj ay sëtam mun ko déedéet déedéet loolu d'accord ma ci sayara man yati baadana anna bani ñii ñëw danañ gis ne doomu Israël ñëpp. yahudan wala yahud lañ leen di wooyee waaye kenn du la wooyee yusuf yu <laughs> allahu akbar mbokk kii tawat na tawat goo xam ni ah dootul wér moom yahuda moo tax li ma leen doon wax ci yahud yi nga xam ne yàlla nee na ñoo gën a bon ci kaw ñooy gën noonu yéefar ñooy nee noonu ñu gëm yàlla ñi loolu mooy yahud yi ñëw ci yahuda moom lañ jóge Ah, ñu bàyyi ko xel waaye góor gaa ngi noonu di dellu koo koy ar rasulul mawhud moo daje woon ak yonent yàlla yusuf ca teen ba bañ ko fa sànnee waaye gis ngeen tàggu na ko nee na ko nag ah, bekkoor bi jeex na bànneex bi ñëw na jafe-jafe jeex na jokkoo ñëw na tàqalikoo deñ na gise gis gise ñëw na ah, meroo deñ na mbégte ñëw na bañante jóge na fi bëggante ñëw na noonoo jeex na ah, jàppante ñëw na bekkoor jóge na fi waaye tamit naataange ñëw na mi ngi noonu daa génn rek dugg ci ci àll bi rek gis ngeen taw ba commencé wàcc kon jafe-jafey misra jeex na tàkk yonte yàlla yaqub ñibbisi na ci ak njabootam di ngeen gis nag ah, incha allah danañ leen wax ginnaaw bi nga xam ni mooy daja bii ñaata at la yaqub war a def ak yusuf wala ndax yaqub dana fi dëkk bu génne àdduna ndax fi lañ koy denc wala ndax dafay delluwaat ca kanaan nan lay demee ak ñaata jamono la yusuf war a def fii ak yusuf bu génne àdduna ndax dañ koy bàyyi fii ci dëkk bi wala ndax dañ koy delloo fa ñu ne suul ay maamam ñu denc leen bi ngeen góor gaa ngi noonu di dellu moom mission jeex na léegi lañ ko digaloon mooy teen ba xaar fa Yusuf nee na ko xaaroon naa la fa ñaari junni at ngay doog a ñëw waxoon nañ ma ni yaay yeneen tib xeet wi waxoon nañ ma ni di nga nekk uh, ab yeneen di nga am ak nguur yàlla dana la jox taar bi gën a mat